waaw sëñ naa fi déclaration patrimoine bi prévu dañuy benn terrain de quatre vingt mètres quatre vingt mètres sur quarante bu nekk fële Ndiaga Niaw mu ko am en mil mille dix sept trois millions la ko jëndee beneen terrain agricole terrain pour wàllu bay la quoi quatre virgule trois hectares la ci commune bu Sandiara mu ngi ko am en deux mille vingt boobu bi nga estimé quoi valeur bi quinze millions cinquante mille la. Euh, beneen ci lu investissement clôture forage ak bassin pompe système irrigation ak pour l'exploitation du champ maanaam xëcc kii bi mu def bassin ak xëccul ndox beeg yooyu yëpp moom hors semence avant muy ji ak frais personnel bi ngi estimé yëpp vingt neuf millions six cent ak terrain terrain nu Thiès mu ngi ko am en deux mille neuf sept cent mille la ko jëndee beneen bi foncier bati maanaam benn kër bu mu tabax deux cent mètres carrés la boobu Mermoz te ñoo ngi ko am par la syndicat des impôts et domaines mooy seen syndicat bi ko amee terrain lañ leen di jox yooyu euh, pour domicile familial maanaam kër famille la koy def euh, depuis deux mille vingt et un mu ngi ko tabax euh, depuis entre deux mille dix sept ba deux mille vingt et un benn partie bi sur fonds propre lu mu xaasam beneen bi dafa leb banque UBA ak banque BICIS ak am nañu ñaari oto. benn kii la Ford Focus 2012 te occasion la ko jëndee en 2019 six millions cinq cent beneen bi Ford Home Explorer Platinum moo ngi ko amee en 2022 moo ngi ko jëndee dix neuf millions ak tamit euh, ñett euh, kii bi euh, compte bancaire compte bancaire créditeur compte créditeur bu ko am 19 mars 2024 boobu 3 millions deux cent soixante seize mille quarante six francs compte crédit beneen tam compte crédit euh, BICIS bu njëkk bi UB la BICIS boobu sept cent quatre-vingt-six mille sept cent quatre-vingt-deux la beneen ma ay bor la di nga euh, bu mu def le cinq septembre deux mille vingt-deux UBA trente millions mais xam naa mooy pour këram bi quoi Mermoz bi mu commencé woon tabax beneen bi prêt sur salarié contracté euh, vingt-deux août vingt-deux boobu huit millions la ak beneen bu ko xaritam lebal dix millions bii de moom c'est clair et net c'est tamit nekkul waxoonte luñ mën vérifier la UBA ak BICIS te bu du woon dëgg bisis dina ko du dëgg UBA ne ko du dëgg saa jub na de ba ci pare sax bu ko xaritam dafa sax da ko ci <laughs> déclaration patrimoine